jóg leen seen jëf mbokk ñuy teewlu ci xibaar yi nga xam ne moom la ñu di baaxee mu ñeel tournée nationale bu président Serigne Mboup di président coalition ànd nawle fii ci Sénégal mbokk yi président Serigne Mboup demoon na ci dëkk bi nga xam ne moom nañ naan Afé Lakram nekkee ci région bu Diourbel mu demoon nag seeti ki nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha Mbacké Lakram di xaritam di wëlëreem waaye nag leeral ko li nga xam ne moo jëm ci yéeneem ci réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal muy programme am Serigne la ñuy ànd teewlu ci kanam Serigne Moustapha Mbacké Lakram li jiitu mooy képp ko yor réew mi da nga war a am xalaatu li ñuy wax àndum nawle ñaareel bi mooy ànd liggéey beneen bi mooy ñun ñu gis ne dëkk bi pour defar ko il faut que ñu dem ci économie bu ndaw bi pour mu màgg loolu nag moo tax ñu ne li ciy jiitu mooy daara ji ñun ñu jël li ñu moom ne daara ji daara ji dooleel daara yi ndax alxuraan moom dafa dooleel boppam looloo tax ñun ñu jël slogan daara ji beneen bi ñu jël mooy tool bi ndax tey jii lépp luy luy luy ci àdduna ci suuf la jóge beneen bi de mooy pénc mi mooy fexe tamit ba xalaat yi ñu di ko jëfandikoo bañ ko imposer nit ñi ni lii la ñuy def moo tax loolu lañ wax ne lépp nag ñu dajale ko fexe yokk ba yëg ko ndax doomu mën naa yokk te du ko yëg waaye bu yokk ba yëg ko te ñu am am tamit gëm ah, li ñu moom mbokk yi ba léegi ci jotaay boobu Serigne Moustapha Mbacke Lakram yëkkati na ay kàddu sant bu baax a baax président Serigne Mboup xamal na ko lii mu yootoo ci Sénégal lu mu yeyooy la te lu mu war a laaj la waaye nag xamal ko li nga xam ne moom moo jëm ci seenuk mbokk ak euh, leeral ko li nga xam ne moom mooy mébétam ñu ànd teewlu kàddu yi. Serigne ñëw na këram tey ma ragal ne boo ko noonu da nga ñëw ci lu dul nuyoo bi da nga ànd ak ñu bari foofu ñëw wuy sunu ak faneen ak faneen waaw waxuma la nag ci sama diggante ak sëñ Touba dul Maodul taxa ak suñ diggante yoon wi ndax foofi dugg rek fala kon nag boo ñëwee fii daal ci gàttal di dugg ci loo xam ne am nga ci droit laaj ko réew mi ay sénégalais lañu waaw dëkkuñu Mali dëkkuñu dëkku ñu Mauritanie Sénégal lañ dëkk ngay doomi Sénégal dem ba xalaat ne war nga soxla réew mi nga soxla ay soxla yàlla di la ci dimbale di la ci jotale nga ne soxla nga réew mi du ñu def nag lu dul ñaanal la yàlla mbokk yi tournée nationale bu président Serigne Mboup euh, ci diwaanu euh, Kaolack demoon na nemmeeku ji liggéey bi nga xam ne wala fi nga xam ne moom moo di marché au bi nekkee ci marché central bu Kaolack doon xool li nga ne moom moo jëm ci yenn ci jafe yi nga xam ne moom lañ fay jànkonteel ngir mën koo saafara ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci marché bi rafetlu nañ taxawaayu président Serigne Mboup nekk maire commune bu Kaolack li nga xam ne noonu leen taxawoo ba saafara jafe-jafe yu bëree bëri yoo xam ne amoon na ci marché au poisson bu njëkk waaye wax dëgg yàlla marché bi am na lu lu bëri lépp loo xam ne ko jàmbat te nga xam ne moo gënoon a métti wax dëgg yàlla yooyu moom passé nañ ko am na lu des nag li des nag ñun duñ ñun duñu xuloo duñu xeex duñu saaga duñu yàq duñu toj léegi nag li des li des ñun jarul ñu di ko waxaat parce que wax nañ ko kin ko war a wax ak te jàpp nañ incha allahu taala dana ko saafara ndax moo waxoon fii taxaw ne danaa saafara seen i seen ci marché bi kon nag su xam ne daanaka li ëpp ci ci marché doon aw métit saafara na ko kon li ci des ñun danañ am yaakaar dana àgg ak ñun fan jëm wax nañ ne beneen machine glace kooku yaakaar naa ne dana gaaw danañ fexe rapidement parce que mooy ko defar am na fi ak sécurité ba lamp yi nee nañ réglé na beneen bi ki mooy xay gi xëy gi dafa nekk phénomène boo xam ne nii yàgg na mooy fépp la am ci Sénégal mooy genre dañ fiy bàyyi marché bi demaat fale loolu nag danañ ko waxtaanee bu buñ ko waxtaanee ba déggoo ci dara ñu dem seeti préfet moom moo ñu mën a dimbale pour loolu dañ incha allah. mbokki ba léegi ci euh, diwaanub Kaolack président Serigne Mboup maire bu commune bu Kaolack teg na xeer njëkk fukki poste de santé yoo xam ne dañ war a liggéey ak yeesal ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack mu nekkoon bëgg-bëgg askan wi waaye it ki nga xam ne moom moo di maire bu Kaolack di président Serigne Mboup euh, nekk loo xam ne diggoon leen ko bi muy campagne loolee nag nekk loo xam ne moom la fas yéenee matale ñu war cee def ci koppar ay millions yu takku lool ñu ànd teewlu kàddoom ginnaaw buñ teg tegee xeeru njëkk yi ba noppi. mu nekk loo xam ne ni vendredi bi passé lañ approuvé contrat bi entreprise bi jot ordre de service am war a démarrer kon ñu ngi ciy félicité bu baax di ñaan entreprise bi délai bi mu wax mu euh, mu gaawal ko incha allah paiement bi du tardé parce que budget bi est disponible. te danañ incha allah xool très rapidement nan la ñuy tegee programme suñ tegee programme danañ ko mën a jox traçabilité ne ko fii mandat bi di cinq ans lii la def lii la ñuy pare. vingt postes de santé yëpp danañ ko mën a réhabilité danañ mën a programmer quartier yi amul poste de santé yëpp am sage-femme yi ñu embauché ñu embauché wu leen en même temps ñu yokk ci def ay subventions yoo xam ne dana mën a dimbale néew gi doole yi nga xam ne nii léeg-léeg ñu bindal leen ordonnance wala ñu defal leen dara duñu am ay moyens. mbokk li lii lañ leen loon ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee ci tournée nationale bu président Serigne Mboup di diisoo ak say nawle waajal élection présidentielle yi waaye li nga xam ne moo jëm ci wàllum parrainage yi sant leen bu baax gërëm leen dig leen daje incha allah ci yeneen xibaar ci beneen dëkk jaageen jëf mbokk yi ba léegi ci euh, diwaanub Kaolack président Serigne Mboup di maire bu commune bu Kaolack demoon na nemmeeku ji yenn ci sëkk yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi mu armé loo kër Serigne Maloum ci jafe-jafe yoo xam ne am na fa muy ndox mi xam ne moo fay taa wala clôture bi nga xam ne war nañ ko yeesalaat euh, ginnaaw bi te nemmeeku na armé li nga xam ne moo nekkee ci lew na ñaseen ngir xool jafe yi nga xam ne moom moo fa am ñëwaat na nag ci euh, jafe-jafe yi nga xam ne am na fan yi ci commune bu Kaolack ñu ànd teewlu kàddu yi président Serigne Boubou ci ni nga xam ne noonu la fa yéenee taxaw yooyu la sëkk. maire bi incha allah feeg euh, ci année prochaine. du tey nag xam nga nit ñi léegi bu maire ñëwee rek ñu ne maire nee na dana def suba ñu yaakaar ne suba day ñëw te yàlla mi defar àdduna bi sax daf ne kulli yawmin huwa fi sha'nin dañuy programme mbir yaakaar naa ne daal ci déwén ci budget déwén bi bu ko conseil municipal bi validé danañ ñëw defaraat cimetière yi li yàqu ci ñi ñu wax yëpp góor jigéen moom diine bëgg ko suñ société bëgg ko kenn ku baax bëgg ko. li nga xam ne nii nag moom nit kat da koy def ngir ak mbon kooku dañoo war a xeex ak moom loolu mooy lii sëriñ yëpp bindoon ne état bi def ko war a def criminaliser loolu la ñuy laajaat ndax buñ ko criminaliser woon ka ko doon def ci bi muy dund danañ fexe ba du ko def waaye nag may ñaanaat population bi ñu bàyyi fajal seen bopp surtout ndaw ñi fajal sa bopp ci wax ak ci jëf l'islam nanguwu ko. diine nangu ko. sant leen bu baax gërëm leen dig leen daje incha allah ci yeneen xibaar ci beneen dëkk jaa ngeen jëf.